ñi yàgg a topp jataay bi yàgg yàgg a gi min nañ ko mooy jataayu soxna yu tedd yi nga xam ne ñoo yaroo woon ci kër gi ñu ci jiital soxna Zeybaara moom sëñ Basiiru soxna Mariam Kunta Cheikh Mamadou Fadal soxna Mariam soxna Maymuna Ñang moom soxna moom soxna Ami Seex waaye ñu ngi saar jataay bi soxna maam Fatim Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou waaye ñu ngi saar jataay bi soxna Asugawaan moom sëriñ Murtada di jaare soxna maam say mbakke di jaare baax soxna euh, euh, soxna euh, say soxna balelo waa ngi ziare soxna maam Njaañ Buso bu baax di ziare soxna maam Musolo di ziare soxna Anta Gay Jóob ak mboolem ñi nga xam ne fekk nañ ci jotaay bi yëpp rek bàyyiwuñu kenn xam naa bi ñëwee ne daa mel dañoo boole seen kàddu jox ko soxna Anta Gay Jóob mi war ko yëkkati ci seen tur kon xam naa dañ koy jox kàddu gi bu ko defee incha allahu mu yëkkati kàddu yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax kàddu yi ñuy bëgg a yëkkati ay kàddu yu seere lay doon yoo xam ne day jëm ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër gi di waa barsàq yi di mag ñoo xam ne màggal gi buñ koy def fàttaliku leen ñaanal leen moo ci jiitu waaye fàttaliku nag seen jikko yooyu ñu amee woon nag ngir jamono yi ñu toll ñu mën roy ci ñoom bokk na ci li ci ëpp solo te moo tax ñu jox kàddu gi soxna Anta Gueye Diop ngir mu ñëwoon nu ci mag ñooñee jikko yi nga xam ne suñu borom dénkoon na leen ko ci ak mbaax ngir ñu mën taaroo yi soxna bisimilah. aouzu billahi samil alim mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bokki julli di bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu man soxna Anta Gaye Diop ñu teew fii ci ëttub barsàq bi ci mag ñu tedd ñoo sell ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dëkkoo woon ñuy ñoo xam ni ba ñu leen noppee gis ba tey gisatuñu ñu mel ne ñoom njaboot gi nag ñi nga xam ne ñoom lañu ñu yoroon ñuy njaboot sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo yaroo woon ci seeni loxo ñu ànd ak bokki taalibe yi ak bokk yëpp di leen taxawel bis bi ak mboolem waa Njaareem ak mboolem murid yi rek fa fay nekk ñuy màggal bis bi tey bis bi di bis boo xam ne bis gënu koo foor ci yoonu murit ndax ñooy ummahatul na ñooy ndey murit yi ñooy ndey jullit yi sax muy mag ñoo xam ni sunu borom ci boppam moo leen tànnaloon euh, sëriñ bi ndax sëriñ bi léppam tànneef la lépp loolu sëriñ tuubaa rekk sunu borom da ko ko tànnal jagleel ko ko mu nga xam ne moom rekk moo ko jagoo muy cib dëkkam bee di tuubaa di ay taalubeem yi nga xam ne nii ku leen doon lim tey kenn ku ci nekk mën naa yilif jamono muy ay doomam doomi sëriñ Touba kenn gisaatu ko fenn ku dul ci doomi sëriñ Touba muy yu góor yi ak yu jigéen yi kon muy ak jagle ci sëriñ bi. ñii nga xam ne nii mooy soxna yu yi nga xam ne ñoom la defal bis bi tey Serigne bi dëkkoo woon leen ñoom it ñuy ñoo xam ne sëriñ bi lekk leen am kon ñu bokk ci jagle Serigne Touba doonoon mag ñoo xam ne ay royukaay lañu ci jamono. doon ñoo xam ne lu ñu war a génnewaat la di leen waxtaane ah di leen eh, teewali bis bii nga xam ne ci woo ñëpp sunuy doom ak sunuy sët ak taalibe yi ak bokk yi ak ñëpp xamaat seen jikko yooyu ndax loo xam ne amatul faat na ah, sëriñ bi nee na moom ci jëmi boppam faat na amatul kon nag léppam loo xam ne faatu nañu rek loola faat na kon soxna yi amatuñu kon ñuy royukaay yoo xam ne yi war nañu delloo si seen jikko yi di leen roy muy ñoo xam ni kenn gisatul ku ni mel lépp lu waaye wax ci yi soxna yooyu mënoo ko dajal seen jikko di nim bii ne ci oqal bokkaaw minal manaaxi bi maa laa yaxtawi xalamun wala lisaanu bi xatin aw xikaayaati loolu moo dikk kon ci soxna yi kenn mënul jàngat seen ay jikko ak seenu melokaan seede yaa ngi ni toog di sëti sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañoo yaroo woon ci seeni loxo te jege leen lool ma jëkk ci soxna Seynabou Mbacke soxna Sey Baara moom euh, Serigne Bassirou moom Xaadimu Rasuul soxna May mu ne ñaa ngi nii moom soxna Ami moom xaadi moom Xaadimu Rasuul jege woon lool soxna Aminta Jobbe ah soxna Bunta Mbacke moom Serigne Fallou mi ngi nii ci sunu wetu càmmooñ euh, doonoon ku jege soxna say Mbacke lool moom sëñ Mbacke Kajoor ak euh, seeneen soxna yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi tubaarkaale soxna maam Jaaño Busa soxna Kubra Lo soxna Maam Bousso Lo ak uh, ñeneen ñi nga xam ne kulim doo matal waaye kilifa yi ñoom ñëpp ngi fi di sëti Sëriñ Tuubaa yoo xam ne ak soxna Asu Mbàkke moom uh, Sëriñ Murtada soxna aw baabu mi nga xam ne kilifay Mbàkke Mbàkke yi fu ñu mësuñoo taxaw fu naar yi taxawul kon nag uh, bis bii day bis bu màgg bis bu tedd ñu di leen ci ndokkale nag di leen ñaanal yàlla na ngeen doon donay soxna yu tedd yooyu sell yooyee nga xam ni nag Euh, dañ leen di roy rek waaye nag roy gi mënta ñàkk ndax nit ku ne am nga idol kenn ku ne am nga koy roy ñoom dama yaakaar ne soxna jaara lañ doon roy soxna jaara tam dafee amoon ay kilifa yu jiitu woon yoo xam ne yi ndax lu baax mosu fee jóg moom itam ñoo ñooñu la copier seen jikko ba am ca lu kawe njort waaye ñii itam nga xam ne ñoom dañoo dund ak ñoom ñoom itam gis nañ ci ñoom jikko yoo xam ne yi kawe na njort gisatuñ ñu ni mel nag waaye nag euh, waykat Ah, ku ne ku ne ku ne sañ ngaa roy ka gën waaw ka lu la nit gën-gën nga sañ koo roy kon nag sañ nañ leen roy bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom euh, defal ñu tawféex ñu am ci seen jikko yoo bu doonte benn ndax jikko yoo xam ne euh, lewat ci ñoom la yam din ñu sell ñu lewat a lewat te xam nga lewat dafa bokk ci jikko yu baax booleeg mën a muy dëddu àdduna soxla wuñ dara àdduna wan gannaaw àdduna doonoon ñoo xam ne dañoo bëggante seen biir kenn ku ci nekk te seede yaa ngi nii taxaw kenn ku ci nekk booy xool sa morom yaa ngi ciy xool jëmi sëriñ Touba ji yaa ngi yaakaar ne rek kii am na ci yow uh, ci sëriñ bi loo xam ne amoo ko yàlla xam ne noonu lañ doon dunde ca soxna may mu ne ña ngi nii soxna Kunta Mbàkke ngi nii dañ daan xëy kenn ku ne di jëkkante di nuji sa morom nii leen daan yooyante ci kër gi di sol solu ñuy daal lay ëtt bi ba mu set wecc ñuy jaabante ak seen woyafaay ga kenn ku ne dugg sa néegu morom nuyu ko boo génnee mu duggaat feneen nii lañu daan jooyantee di nuyoo kenn ku nekk di siyaare sa moroom ngir di ci barkeelu doomi sëriñ sëti sëriñ Tuubaa yi ñu yoroon dañ daan barkeelu ci ñoom ndax euh, xam gëddëg sëriñ bi buñ doon xam sëriñ bi ma ne ñoom ñoo ko xam ndax yemalewuñ ko woon ak dara xool ñu dara àdduna doonoon nit ñoo xam ne nii nit ñu taaru lañ woon nag kenn nag ku ñaaw nekku ca woon maanaam nit ñi di li ñuy def léegi di màggat di ñaaw boo amee juróom benn fukki at sax tàmbali seere yaa ngi nii kenn ku ci nekk dangaa ànd ak sab taar ba ni nga màggate kenn mus caa ñàkk bañ macha allah yooyu yëpp ak jagle la goo xam ne gii waaye xëy ba gi ñu xamoon nga xam ne loo leen meen meen ak loo leen bëgg-bëgg doo leen ñeme ñaaj doo leen yeb benn yoon nga xam ne sëñ bi rek ngay gis ci ñoom waaye mag ñooñu fàddu nañu de amatuñ leen gisatuñ leen waaw xaaboo li rabbin daahum lil xolowaati bi wax kon nag euh, xam naa kenn mënut a wax ci ñoom ndax loo wax wax rek mu dina des kon ñu siyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew rek te képp ku kuñ ci xam ne tudd ñu sawturit dañoo mënta matal rek waaye daal ëtt ba daal ngi nii mboolem ñi seede woon it ñi ngi fi kon nag moom nanu suñ borom taas ci seen barke ah defal nu jàmm ci ñoom di ñoo ngi nii soxna Ami Diop soxna Ami Diop taxawaay bu rafet la taxaw ci euh, wax dëgg yàlla ci bis bi ak soxna Muslimatu Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal kon yàlla na noo sun borom fayal leen ci bark Serigne Touba ñu ñaan itam nag euh, soxna yi nga xam ne ñoo taxaw bis bii yàlla nañ fi yàgg yàggu ñoo jiite ñu yàgg koo ànd ci bark sëriñ Touba te yàlla sarax nu ci seen jikko yooyee bu doon kenn ku ne benn la la ci may sax euh, muy muy jikkob muy wala jikkob lewat jikkob doylu jikkob bëggante jikkob euh, doo xeeb kenn xeebuñ seeni bokk bëgg aw nit ñeme njaboot mën a jaxasoo ci seen biir mën a joxe seen alal mën a dimbale seen i bokk man daal seen jikko yi daal mënee su koo lim daal kenn xamul daal loo ci wax loo ci wax rek tuuti na waaw kon nag kàddu yi moom gannaaw lu mu bari bari mënoo dajal seeni jikko daanaka mat naa xaw a gàttal rek ci kàttanu yàlla di jéggulu nag lépp lu ci damm ndax tamit nag euh, mënee su da wax ba jot leen ba jot la la nga bëgg wax waaw la nga bëgg a wax la sa xol doo ko mën a làmmiñ da ciy lot waa ci ñi nga xam ne dund nañoo ak moom kon nag euh, ñoo ngi jégglu lool nag kàddu yi lépp loo xam ne dama na ci rek ñoo ngi koy jégglu waaye xër rek la ak it nag euh, xam ne ñu meloon te lot ci wax ko jërëjëf sëriñ bi. dañu maa si déglu soxna Maymuna Ñang moom soxna moom soxna Ami Seex moom Seexuna Ahmadal Xadim mu yëkkati ay kàddu ñu barkeeloo ko ci kàddoo mi misaal lii mais nag da koy wax ci ndigalul soxna Kunta bi nga xam ne <laughs> moom mooy sëñ mooy sëñ bi mooy kilifa jotaay bi <laughs> waaw bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñu leen di nuyu te di leen siyaare te di leen ñaanal jàmm te du ko ñaanal ñëpp tey sant bu baax mbooloo mi tey ñaan jataay bi yàlla na ko yàlla nangu te barkeel ko te boole ko jataay yi nga xam ni moom la Seexul Xadiim gën a gërëm ñaanal bu baax ñëpp sant ñëpp. ñaanal soxna maam Fatou Mbacke yàlla yokk ko yërmande ak leer ak mboolem bi fi jóge ñëpp ak mboolem julli nekk ba sàq yëpp yàlla def jéggal bu ànd ak yërmande ak ndimbal ak seeru xadim jërëjëf sant nañu bu baax jërëjëf yàlla ñu ko teew déwén bu bari waaw mag ñi de moom daanaka moom mooy wax ji benn la li soxnaante wax rek moom wenn melokaan lañ yor waxtu bu ne koo ci gis rek gis nga sa morom te moom li boo leen dee xalaat rek daanaka moom day mel ne yaa ngi jàkkaarloog ñoom loolu nag day doon ak ne yàlla nu ci yàlla gën a saxal rek te dimbali nu ci jërëjëf joxaane sant nañu bu baax jërëjëf ñëpp di wé nañ teewaat fi kenn bañ a manqué rek waaw ñu ñaanal ñëpp nag di ñaanal soxna yi di la ma waxoon daaw rek ma xamul mahmudan waaw ndax ñun ñoonu yar ñoonu jàngal ñu wax si ne roy ci ñoom rek waaw ñu ñaan ku teew rek yàlla na sëñ Tuubaa faj sa aajo waaw ba déwén nag jàmm rek incha allah. ñuy kàddu yu seede yoo xam ne moom daa jóge ca nga xam ne ñoom ñoo fekk woon daañ jàkkaarloog soxna yi ñuy def ñuy gis ñuy wax ñuy dégg ñuy seede seenub jëfalante ñu ngi ziare bu baax soxna Kubra Lo ñëw na ci jotaay bi léegi soxna Ndeye Diop ñëw na ci jotaay bi léegi soxna Guma Lobé Fall ñoom ñëpp ñëw nañ ci jotaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ak euh, soxna Aminta Diop mi nga xam ne ni ko bàjjen ante waxee léegi borom taxawaay bu rafet la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen ko xamee jataay bii moom jataay la boo xam ne jataayu buñ baaxoo def la bis bu euh, saa yu ñu dajee fii ci njaareem jàkkaarloog soxna yu baax yi tey nag ñu jël seen kàddu ñoom ñëpp jox ko soxna Anta Gueye Diop mi mu yëkkati fi kàddu yu am solo yi mu yëkkati def seere yu am solo yi mu def ci mag ñi ñu ngi ñaan suñu borom yàgg fee teew at yu baree bare bëri ñu ngi ko yelwaan ci soxna yu baax yi soxna Madame Kunta soxna May Modi Ñang ak ñi fi teew ñëpp ñaanal ñu ñu dellu si waat déwén te kenn bañ a manqué ci barke baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa